lii dafa neex waa lii la gars yi yi kontaan si fête et ça quoi parce que ñu xam li ñuy xaar kuy liggéey wax yoru réew nanu joob nan dem liggéey nan liggéey dóor waar bare taan bi mu set Médina bu set ñu la setal képp kii mairie sa gox na ko toppatoo defar ka mu set Bamba Fall nag Médina ñoo ko fal ñoo ko bëgg kenn moomul kenn moom moo def lu ñu ko bëggee wàcc si le terrain gars yi duñu soxla lii ànd ak ni ñi bu la nit ñi soxlaa nga ñëw cang cung cang yii xaa xuu xaa Pape Birahim. waaw non yow demal alaxira rek. waaw ma jox leen benn le maire Bamba Fall ma leen jox Pape waa 10 rang kuŋ kaŋ kaŋ ak sénégalais xam ni kii. métier moy ay tableau ak peintre ak peintre la quatre la aussi ni ngeen koy gissé ci interview interviewé, muy kaas di mer melul nit bu respecté man ko depuis na nit jox Bamba que ni Bamba dafa nekk Bamba dañ koy ñaanal mu gudd fan moy limay wax légui dañ koy président Bamba bu président ñun ah, liggéeykat la bëgg na kuy liggéey 10 000 moom sama xarit la borom rang kunkang borom alaxira moom na ko féetewoo rek. waaw ah, moom dafa am ñu mu war a invité nee na. ay mbokkam. non yow yow ba rek ah woo Medina. I'm from Medina. You dimil diine gu xam-xam gu sellal gu mat moo ne mag ñaa ngi diisoo gune yi àndandoo waxtaan bi fal na xoo Médine la ñuy ndamoo man daal kontaan naa ci yéen bég naa waa ci yéen man sey naa ci yéen daal ba mu neex bu leen mësa bàyyi waxu malakta yi jàppoo àndandoo mooy li wóor lu fi baax ngeen jël ko lu bon ngeen bàyyi ñëpp leen naw ngir seen yàmbaar Médine da dafa graw town bi yëpp moo fi taw Médine da lay job bopp def la riyal na mbamba xel kenn du la suut te kenn du la mën a dund